li président Afrique Bank wax légui moy contane na lol ci euh, projet bi ñëw na ci site bi gis na ni projet bi avancé projet bi ñom Afrique Bank ak beneen banque AFC ñoom ñooy koy financer euh, li ñu contane nañ trop parce que projet bi dafa bokk stage gouvernement bi projet bi bu bu paré dina tax gaz bi nga xamni am nañ ko Sénégal avant ñu wa bitim rew diko jëfëndiko wa Sénégal nañ ko mëna jëfëndiko dina projet également dina permettre Sénégal seen ñu am énergie bu gëna bari bu bu xamni egal également day gëna a moins cher lim ci tek moy ñom ñoo ngi continuer liggéey ak Sénégal ci yenen projet bu dul bi ben projet moy bi nga xamni ne mu ngi ndar mu féete ndar pour ben gaal bi gën ndar bu ko euh énergie bu nek Sénégal gëna a yokku pour que client sénégalais mën ci gëna profito kontaan na trop ci li mu gis mi ngi félicité eh, ñi ciy liggéey ñëpp partenaires yëpp gis na li mu gis fii dal na xelam e mi ngi leen di félicité di leen sant bu baax. projet bi eh, centrale bu mag la centrale lu trois cent soixante six la ku wax trois cent soixante six mégawatts mooy daanaka mooy Sénégal suñu énergie bi ñu installé puissance bi ñu installé boo koy xayma daanaka boo ko boo ko boo ko xaajee ñeenti xaaj benn bi la. loolu moo lay woon rëyaayu projet bi beneen important projet bi am mooy gaz lay dawee lu tax gaz parce que xam ngeen ni ñëpp Sénégal gis nañ ci gaz boo xam ni am nañ yaakaar ni fii ak at dina mën a génn boo defee ñu anticiper mën a tabax ay centrales yoo xam bu gaz boobu dikkee dinañ mën ko jëfandikoo pour lan pour que prix courant bi liñ koy defaree courant prix bi mën a wàññeeku li ci topp mooy environnement bi tamit. dina tax machine yi utiliser environnement bi dina gëna propre nga xamné environnement bi li émission yi dina gëna a li ci top moy aussi projet bi ay sénégalais ñoo ci def sen xaliss parce que bu yàgg ba projet yu melni projet yépp ñi nga xam ne réew ñoo ko daan développer bi avec ku ko xamé li ñuy wax local content moy vraiment ñun ñi nga xam ñoo ne ñoy doomu bitim bo doomu Sénégal il faut ñu dugal sen loxo ci économie bi ci projet yu melni donc pour ñu bo xolé local content moy promoteur yi. amul kenn koo xam du waa doomu Sénégal te li ci gën a li ci gën a li ci gën a rafet mooy am na ci ñoo nga xam ne daaw noonu sax nekk ci côté industrie ñoo ñoo ñoo nekk ci côté ceeb ay côté côté côté leneen lañ daan nekk mais dugal nañ seen xaar ci projet bi loolu si lu ñuy rafetlu la li ci topp mooy ay doomu Sénégal tamit ñoo ciy liggéey ñu mel ni ñun ñu mel ni technicien sénégalais yi ñoo ci nekk di liggéey suba ak ngoon pour mën a développer suñu expertise yu yu mel nii donc projet bi daal en somme en lu ñu ko mën a lu ñu ko mën a résumé mooy loolu projet bi am solo lu bees la du fait que vraiment Sénégal yi ñoo dugal seen xaalis Sénégal yi ñoo koy développé te amee yaakaar tamit que Sénégal yi dañu gis seen bopp.